rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara bu baax te di leen ndokkel di jiital ci nuyoo bi kilifa gu tedd gi toog di sëriñ Bassirou Mbacké mu Cheikh Abdoul Khadir eh, ak eh, jëwriñu daayira Muxaddamatul Xidma Serigne Afia Bousso ak sunu bokk yi nga xam ne ñoo fi teew ci waa Italie di waa Toscana. su ngeen gisee teewaay bi nag Cheikh Mamadou Bassir ñëw di seet si liggéey bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma dañoo nekk fii ci jumaa ji ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Muntaxa te moom mii di ndawam yor kàddoom kon léeg soo amee yenn liggéey yu am solo yoo xam ne am na fi eh, dana ñëw ngir seeral ko sëriñ bi seeral ko sëriñ Tuubaa mi nga xam ne mooy borom liggéey bi eh, sëriñ bi kon eh, garab yi nga gis mi ngi bàyyi ko Italie Toscana comme daayira Muxaddamatul Xidma ci liggéey yi nga xam ne sëriñ bi dénk na ko te jumaa ji jiitu ci ñu gis ne képp kuy taalu bi rek foo mën a nekk li nga dëgmal ak li nga bàyyi xel mooy barab bii di jumaa ji te ñetti mbir yi nga xam ne mu ne suta ñàkk ñu saytu ko muy lu ci jiitu mooy képp ku fi ñëw ñu fexe ba nga jaamoo yàlla ni nga ko bëggee te doo am benn jafe-jafe loolu jàpp naa ne moo jur euh, fajukaay bi nga xam ne moo nekk ci biir jumaa ji fajukaay bi di faj ajuma ji jot ak événement yi bu amee waaye nag <clears throat> ni ko sëriñ bi di santaanee rek mu mu mu nekk ci loxol district sanitaire bi nga xam ne mooy bu Touba ci jiital docteur Ndeye Maguette mu wutal ko calendrier boo xam ne eh, noonu la ñëwee di fi faje bu événement ñëwee nag rawati ba tante bi nga gis noonu sax dañ ko cay yokk ngir àttanatul ñi nga xam ne ñëw fi ñëw di faje di ay téeméeri téeméeri loolu tax na nag li ñuy soxla ci garab dëgg la association yi nga xam ne ñoo yor wàllu pharmacie ak bonne volonté yi nga xam ne ñoo ciy jàppale daayira bi bëri nañ ak jëmmi waa santé ci boppam waaye du tee daayira bi ci boppam day génne ci ay moyens lu ci bëri di jënd ay garab ngir bëgg nit ñi fi faju euh, ñuy mën a ñuy mën a ñuy mën a faju te duñ ci fay dara loolu nag tax na biñ demee itali ren ci Pisa euh, jaar ci sëriñ Xaali Jaañ mi nga xam ne mook sëriñ Ibrahima Sey ñoom ñi nga xam ne ci ndigalul jëwrini waa toskaana ñoom sëñ Maas ñi fi toog ak euh, président daayira yi nekk toskaana yëpp ñoom lañu jox ndigal ngir ñu nekkal fa daayira Muxaddamatul Xidma ñuy waxtaan ak koo xam ne am na man-man ci digganteem ak tubaab yi nag jaxasoo ñuy wax sëñ Ibrahima Diagne ci lañ waxtaan ak moom Ibrahima Dieng ci laa waxtaan ci lañ waxtaan ak moom mu mu xamal ñu man-manam ñu ma leeral ko it bëgg-bëgg bi nga xam ne jumaa ji daf koy yittewoo ci wàllu garab nga xam ne du doy ci la ci waxtaan ak partenaire am yi nga xam ne ñoom jaxasoo na ak ñoom ñu accordel ko valeur wu toll nii moom ci boppam moo ne ma tubaab bi nee na ko valeur wu garab yi biñ ko xayma dana euh, cent millions yi dana tegal kon nag loolu lu am njariñ la loo xam ne jàpp naa ne sax euh, du ngir jumaa ji rek ndax bi ko borom pharmacie yi xoolee euh, li ci jumaa ji di di di di soxla ber nañ ko waaye lu ci bëri. Euh, dana amal njariñ hôpitaux yi ak district yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi te loolu jàpp naa ne mooy liggéeyu daayira Moukhaddamatoul Khidma muy di xidma ngir ñi nit ñi jariñu loolu daal moo moo waral jataay bi kon sëñ bi ñu ngi lay sàkku nga ñaanal kon euh, jëwrin yi di waa Toscana léegi maa ngi koy wax sëñ Mass ne ko daayira Moukhaddamatoul Khidma su fekkee ne euh, am nañ ndigal ci Serigne Saliou ngir di saytu yi seen gis-gis jàpp naa ne suyee na ci ndax bi ngeen amee gis-gisu gis ne Touba soxla na margo ngeen tabax ko ba jébbal ko sëriñ bi ci la sëriñ bi xalaat ne kon laaj na ay taxawaay yu yu aju ci ku saytu margo bi ak ak armeel yi waaye liñ ci sant yàlla mooy bim bim bi mu xalaatee loolu xelam kan la daj daayira mu xadimatul xidma mu woo fi Afia mii ne ko bis ni ki tey kon armeel yi jox naa leen ndigal ci ngeen saytu ko bu fi kenn duggati wala bu fi kenn defati loo xam ne xamuleen ko yaakaar naa ci lañ ko nosee ba biñ ñëwaatee tamit ci jamonoy Sëriñ Sidi Moxtaar ñu tëj armeel yi ci seen gis-gis yu rafet tamit yéen ñiy jàppale sëriñ bi ngeen gis na tamit kon niñ nosel yi jaar na yoon tax tamit ñu joxaan ñu digal ci ci armeel yu bàq kon ñoom it liggéeyu daayira Muxaddamatul ma ak ñoom yàgg na kon su fekkee may nañ ñu yaa ak yaatal ba seeni ndaw ñu may leen ñuy mën a leeral liggéey bi ci daayira yi foofu ak ci mbooloo yi ba ña fa am man-man gis lu mel nii ba tax man cee jàpp jàpp naa ne mën naa juru yeneen loolu xam ne appel la bu ñuy lancé boo xam ne tey ñi nga xam ne ay taalibe lañu nekk ci bitti te jaxasoo ak ay nasaraan wala ñu jaxasoo ak ñoo xam ne am nañ man-man ci wàllu matériel ak yu demee dëkk bi xam ngeen ne gis ngeen ne dëkk bi soxla na lu bëree bëree bëree bëri te Sëñ Tuubaa moom li li fi am lépp taalibe yi ñoo ñoo koy def kon kon ñi ngi ñi ngi ñaan tamit nga ñaanal bokki taalibe yi muy jëwriñ ak Sëñ Ibrahima jang moomu nga xam ne euh, moom tamit yàlla dogal na sax bokkul ci yoonu murit waaye xam nga ne am na yéene lool ci liggéeyal sëriñ Touba waaw kon loolu tamit ñu ngi ko ci euh, sant bu baax di la ko seereel ma daal ci tënk ngir bañ a ya waaw euh, kon euh, li li li ñuy li ñuy li ñuy sàkku ci loolu rek mooy nga ñaanal ko ba mu man manam gën a yokk kon ci ci kàddu yooyu mooy yi ñu doon ubbee ngir leeral liggéey bi ngir fiñ ci jaar biñ defee loolu nag ci saa sa jokkoon nañ ak Euh, daayira Moukhaddamatoul ma district bi nga xam ne mooy nday màggat ñu yónnee leen kii ñoom tamit ñu jaarale ko ci euh, niveau régional mu jàll ba dakaar ministère de la santé ci boppam ñoom ñoo génne conteneur garab yi ñoo ko wutal autorisation ba mu ñëw fii ndax mbiri garab du doon mbiri daayira ak daayira kon ci état la jaar ba agsi fii loolu tamit ñu ngi ciy sant waa district bi ak docteur Dieng mi nga xam ne moo nekk ci ci région bi loolu it lu mat leeral ci biir loolu tamit transport bi nga xam ne moo ko indi Sénégal ñoom taalibe yi nekk Toscana ñoom sëñ Ibrahima ñoom ñi ak ñoom sëñ Assane Diop ñoo ko saytu muy 2000 euros ñoom ñoo ko fay mu ñëw bi mu ñëwee ba fii xëy na euh, fay douane mais fere yi nga xam ne moom la doon def muy fere fere kii yeeg yooyu yooyu daayira Muxaddamatul Xidma ñoo ko ñoo ko fay loolu tamit dafa mat a leeral kon ñi ngi sant ñi nga xam ne ñoo jëfoon ca ba ba ñi doon chargé conteneur ak ñoo ñëpp euh, di leen ñaanal ñu xam ne jëf ji agsi na kon daal kàddu yooyu lañ doon lañ doon lañ doon ubbee su ko defee dañuy jox kon Euh, docteur Abdoul Ahad ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ àndal liggéeyu district bi ñu ñuy jàppale ci fànnagu gu nekk jàpp naa ne njariñul garab yi ñoo ñu koy gën a xam ak lan lay mën a jariñ liggéey bu noppee ñu jox euh, jëwriñ toskaane yi bu noppee sëriñ bi eh, yëkkati ay kàddu su ko defee lu ñu lu ñu gën a mën a tënk rek balaa waxtu wee jot xam naa mooy gën. Abdullah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaare bu baax te jiital ci siyaare bi sëñ basum sëriñ Abdou Khadir mi nga xam ne nii moo mooy jëruñu sëriñ Mountakha Bachir xalif général de Mourides di sargal suñu mbokki taalibe yi ak suñu mbokki jullit yi nga xam ne nii jëf ju rafet ji ñoom ñoo ko jëf te ñaan suñu borom mi nga xam ne dara ko ku ci nekk aajo ji nga xam ne am nga ko yàlla na ko suñu borom saafara ci daraja jëm ji toog ak suñu toog xamaa di wax rek ci euh, teewaayu samay kilifa yi la docteur ak docteur euh, Diagne nga xam ne ni liggéey bi nga xam ne nii moo ne fii ñun ñoo koy ànd ak waa daayira mu tax mu xaddamatu xidma di ci liggéeyal Serigne Touba mu doon loo xam ne ni lu am njariñ la ndax bañ ko defagul xamaguñu woon njariñ la waaye bu ñu ko tàmbalee lépp lañ gis ne lii ndekk te mënutoo woon a ñàkk te képp kuy dem ci barab bi nga xam ne ni jullit ñi dañ fay daje lu mel ni di nga ko fa fekk soo demee Médine di nga fa fekk lu mel ni boo demee Màkk di nga fekk leen te Serigne Touba daa waxoon dëkkam bi ci ñaar dëkk yooyu la ko xool bon lépp loo xam ne ñu ngi koy def ci dëkk yooyu rek war naa mën a am ci dëkk bii jërëjëf yéen nag ci taxawaay bi ngeen ci am ndax garab yi ku gis quantité bi ak njariñul garab yi xam ne nii loo xalaat rek ne nit ku am gàllankoor ci biir màggal wala ci beneen événement te ne ci biir jumaa ji luy ëpp ca matériel ba lu ko mën a saytu ak la ko mën a faj ma fa ndax andi ngeen équipement waaye da ngeen àndaale garab loolu daa doon lu am solo garab yi ngeen andi tamit dina am njëriñ ba dina jéggi dem ci ñeneen ñoo xam ne ne xëy na danañ ko soxlawoo te seeni poste du ko jotul ndax garabi tension rek li ma fi gis te muy doon garabi tension yu baax baax ba ma ko yëkkatee war ko docteur Diagne li ma mën a ma yi yéde garab yu baax a baax dana faj ba fajaale cholestérol ndax yooyu ñun fi ne nii suñ ko amee fii tamit buñ ko jaay dina doon lu seer yàlla dogal ne andi ngeen ci quantité bu bari boo xam ne nii ñaanu yàlla waa jumaa jëriñoo ko waaye dañuy ñaan yàlla feneen foo xam ne ne na faa àgg ñu mën ko fa àggale ñooñu mën ko jëriñoo ndax loolu mooy seen yéeneem ba daal sëriñ bi ci gàttal Euh, euh, yeyoo nañ ñaan goo xam ne ñaan gu leen beral la ndax seen moor ñu fës ba nga xam ne seen morom mu ko gis xam ne liggéey Sëñ Tuubaa lii lay maye ci gàttal daal loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko eggee di sant waa daara ji bi lépp jërëjëf kon ñu ngi ziyaare ñu fi teew ñëpp di ziyaare Sëriñ Basiiru di yeesal suñu kóllëre ci moom di yeesal kóllëre Toscana gépp ci moom daje bii ñu fi daje nag ngir indi fi lii day bëgg-bëgg wala joxañu sëriñ Saliou ci nun muy toskaana ci dëkk bii di tuubaa ndax kat Muxaddamatul Xidma bi nuy booleeg moom ci bi ñuy liggéey morgo bi ak bi ñu ko liggéey ba noppi ak fee mu nekk loolo ak boole bu mu nu boole woon bu yàgg la jëwriñ yi nga xam ne nag sëñ Ibrahima Dieng ak sëñ Xaali ak ñi mu àndal di pàcc ci toskaana gàddu saytu lay liggéey booba ba mu mel nii mu mel tey ñu def ko ci turu taalibe yëpp ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm waaye nag ñu ngi ci lancé appel ñëpp ndax kaana moom boo gisee mu am ak wuute ak yeneen dëkk yi mooy moom léppam da koo jëmee Touba lu mu am day indi Touba lu muy def Touba la koy defee loolu tax ñu liggéey morgo bi def ay mbedd yu bari courant jamono jii ñuy wax liggéey nañu ab hôpital ba noppi na ministre bi bëggoon na sax nu ubbi ko balaa màggal gi waaye defaraat ak cokk-cokkal yu ndaw ba mu rafet taaru loolu doo nga mun téye waaye liggéey ba moom noppi na centre de santé du poste de waaye centre de santé la sëriñ bi ñoo ngi doon wax ca jamono yee di sàkku tam nga ñëw seet si liggéey booba ndax bu noppee yow la du koy jox ca noppi na kon ñii nga xam ne ñoo fii indi garab yi nag noo ngi leen di sant di leen gërëm waaye nag di soññi waa Toscana xam ne lu Touba soxla daal Toscana ci war a jiitu lépp lu Touba mas soxla Touba Toscana ci jiitu jumaa jiitam sunub lënkaloo yàgg na ndax am na lu mat fukki at yoo xam ni produit yi de yi nettoyé barabu sëriñ bi Toscana moo koy def ban liggéeyee morgue bi ba noppi itam tos Toscana sëriñ Saliou yéen la ko jéggal ak lam ci wax ak ni ngeen ciy doxee tey jii itam lu bokk ci Toscana dajale garab yi ba indi ko dan incha allah dañ fas yéene beneen équipement ak yeneen lépp loo xam ne war na ci rek mu ànd ci waaye nag taalibe yëpp roy ci ndax kat barab bi benn amuñu benn barab bu ko gën a kawe. ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di soññ waa Toscana Toscana moom léppam Touba la soxalawul dala jërëjëf xam naa kon ñi ngi sant bu baax euh, docteur Ndeye Maguette wax naa ko léegi ak district bi ñi mu àndal ñëpp sant it sëñ Mor Diagne mi nga xam ne moo jiite pharmacie yi nekk ci région Diourbel. Euh, ajjuma ju nekk dinañ tànn kenn ngir mu ñëw di saytu garab yi fii ngir euh, calendrier bi nga xam ne moom lañ ko defal kon su ko defee sëñ sëñ Ibrahima waaw. waaw waaw bisimilah ah, ah. bu ngeen noppee waaw noppee danañ ko mën a dugal ci kii bi kon su ko defee ñu bokk jox kàddu gi sëriñ bi rek waaw. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. bokk julli di bokk taalibe yi. ñi fi teew ak ñi fi teew ñëpp ñu yëkkati suñu kàddu ci ndigalul cheikh Mouhamadul Mountakha xafidahu llahu taala waraxa wa ayadahu wa zaada min nasrihi di leen jotli kàddu yi ndiw yu bàyyi ko ci moom ndax waxtu xoj nañ ndax ñi ngi sone kon ñi ngi teg néew bi ci loxol sëriñ Afiya Bousso al imam mi nga xam ne mooy jëwriñu daayiratu Muqaddamatul Xidma kon sëriñ Afiya sëriñ bi nee na mi ngi lay jotlaatu cant ak ngërëm ci liggéey bi nga xam ne fekkoon na ay kilifaam teg ko ci seen loxo ñeen di gu saytu ca nu gën a rafete waaye xam ngeen ne kóolute ak yaakaar bu kilifaam yi amuñ ci ñoom rek li mu am ci seen moo ko ëpp loolu kenn nattabliwu ko kon mi ngi leen sant leen ba leen ñaar bu yàlla dool leen kattan ak wér ak ba ngeen gën a mën liggéey Sëriñ Tuubaa ndax liggéey bi sell na rafet na jub na dëppoon na ak sëriñ bi dara génnu ci sëriñ bi te lu ngeen ci def it lu ngeen xalaat laaj sëriñ bi ndigal ba noppi fu leen ci sëriñ bi yem loolu fa ngeen ci yem kon nag loolu itam faw ñu seereel leen ko ndax xam seen dogu ndax li ngeen bokk ci sëñ bi doyloo leen ko te doyoon na ci yéen da ngeen a jël lépp jaayanti seen dund gépp ngir liggéey Sëñ Tuubaa muy loo xam ne nag ñëpp ñëpp leen ci ñee ndax ab cër la ndax fu ñu liggéeyee Sëñ Tuubaa rek lii mooy ndigalu Sëñ Tuubaa li jiitu mooy ndigal li mujj joxe itam mooy juwaay Tuubaa ji kon bu ngeen amee tawfeex ni ci ak cant ak di leen di amal di sant itam waa Italie rawatina waa tuskaana lii Serigne Mass Thiam wax ak ñi ko jiitu ñu leen sant ci jëf jii ngeen def defar ko sëriñ bi ci jumaa ji ba mën a jàll ci dëkk bi te xam ngeen ne faj ci wàllu wér-gu-yaram bokkoon na ci jaamu yàlla yi gën a màgg te njëkkewu leen ko ci lii ndax seen turu moom yaakaar naa ñëpp xam nañ ko. wala ñu bari xam nañ ko bokk Touska mu seen digg dëkk bi seeni jëf ci dëkk bi xam nañ ko kon képp ku ci jëf rawatina kooku ngeen tudd wax ne moo ko lijjanti Ibrahima Dieng ba yàlla def mu andi ko ànd ko yéen yéen tam ngeen def ca la ngeen war def ñu ngi koy jotli cantuk sëriñ bi ak ngërëm di ko ñaanal di ko xamal ne sëriñ képp ku ko jëfal bay gaa gi sa ndax rawatina ci jumaa ji ndax barab bu te barab ñu te ñu toog di daaru maarif nga xam ne ak Cheikh Mahamadou Fadel moo ko sosoon ngir xam ne Sëriñ Tuubaa daa waxoon ne waccaal binaa iya binaa ilmi wa sunnatin bi xilmi kon waxaatit ne wajxaluhu daban maskana taallumi wa mawdial fikrati wa tafahumi moo tax léegi laa ko wax si lu kiimaan am na ci ndax sëriñ as jaxate mi nga xam ne di doomi sëriñ am sutu jaxate moom loo ko cheikh moom dafa tegoon ci loxoom waaye juróom sëriñ am sutu jaxate ku ne xam ne ne sëriñ Tuubaa ko jàngale loo daana ko sottiloo ay mbindam waaye daana ko ay mbootam yu ko yu ko gën a ñor waaye daa ko daa jàngale loo ba mu demee ba wàcc ko ci jàng ci njàngale mi rek moom ci boppam ñaanoon na sëriñ bi ne ko ñaanoon ba adduna tukki lii nga xam ne wàcc nga ma ci muy liggéeyu jàngale bi ba faw sama njaboot du bokk ci ñi koy def hmm. kon loolu mu andi lii hmm. Cheikh Mamadou Fadi tam xam ngeen ne moom lépp mu xar baax la hmm. jëfandikoo ci moom xar baax ba daara ji mën naa ne ku fi jaar rek ñëpp xam-xam ci dëkk bi ñëpp jaar nañ fi jàng loolu moom ci xar baax suñu fàll yi la ñi ngi sant bu baax yéen ñi nga xam yéen a jëf ji di sant it soxna Ndeye Maguette moom bi leen feebal ci wàllu kër docteur ak ñi ko ñu ngi ko àndal ñëpp ci jokkoo gi ñu jokkoo ñoom ñi nga xam ne lii bari jitoo ci liggéey bi leen sant bu baax di leen gërëm suñ maas mi nag moom mën naa seere ci moom ndax bu fekkonte ne liggéey suñ tubaab kenn dana kon kon wàcc na bu yàgg ndax daayira hôpital bi xam ngeen ne jëf na ci lu bëree bëri ak yéen liggéey yu bëri waaye nag jaamu yàlla liggéey suñ kenn du ci wàcc ndax waa waaw buur rabbaka hattaa ya'tiyakal yaqiin kon lu ngeen jëf fàtte leen ko mm-hmm. te gën a góorgóorlu mm-hmm. te ko ngeen mën a soññeet xeetal ko ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ngeen def ko mm-hmm. te xam ne Sëriñ Tuubaa ku koy liggéeyal sa bopp mu koy defal waqdi hawaa'ija llaziina daamu fii xidmati wa hablahum maaramu di sant bu baax Sëriñ Baara Mbakke Sëriñ Suhaybu ci yeesalaak gi fii nga xam ne def na ci liggéey bu rafet te di ko defe ngir pësteef na ko waajurum ba daal di def rek sëriñ Souhaïbou sëriñ Souhaïbou li ñuy wax ixlaas boo ko doon misaal mënees na joxe mandarga ci moom bu daa dimbale ay nit sax mbaar bi day topp xaaj topp ba xaaj guddi muy wër kër yi ko joxe ngir bañ kan xam ne moo ko joxe loolu nag mooy li am solo ci jëf ndax jëf moom li ci ëpp solo di ko jëf ngir yàlla te di ko bañ a di ko di ko di ko di ci bañ a dugg njëstal ndax moom fu mu duggee rek la ci des moom adduna gi ci barke bi dootul ko ci amati rawatina lu jëm ci Sëriñ Tuubaa liggéey Sëriñ Tuubaa képp ku koy def na positif bi jiitu sellal ga jiitu mu dëppoo git ni ko Sëriñ Tuubaa bëggee kon ñi ngi sant ñëpp ak képp ci jëf bi mel nii ni ko Sëriñ Tuubaa ndax jumaa ji moom da Sëriñ rek ba jumaa njaareem ji àggee ñëpp di ko yéem jumaa nja ji xam nga ne bën a jumaa ju ko dàq ci réew mi bëriwut ci architecture boo ko xoolee ba fa ba fa suñ bi duggee yéem ko daf ñëpp di ko yéem daañu leen sama jumaa ji ci Tuubaa bu àggee day mel ne xam ngeen ne waañ di mel ci biir kër noonu la noonu la jumaa ji di mel moo tax jumaa ji fa mu jëm àggu ca moo tax Cheikh Mamadou Mountakha am ci ay somb yu ngir yeesal googu mu ci war def ak yàq li mu ci war def ngir xam ne du àggu mukk te lu ci waa jëf fu jëf fu jëf baaxee rek fii la gënee ndax mooy ndi Sëriñ Tuubaa di jiitu nag mu daali woon ci lu mu ci daali woon nekku ci feeñ da nga bu faw waxoon Cheikh Mamadou Fadil ne ko mboolem ndigal yi ma daa laaj bindi ma bind leerta soo tontuwuma la ndigal li mooy jumaa ji ku ñëw na la ci fekk ku dem na la ci bàyyi kon comme too feexe jëf ci rek xamal ne eh, ndimbalu Sëriñ Tuubaa la waaye jumaa joom nit yor na milliards yu bari waaye mënu ciy jëf ndax la fi dugg moom Sëriñ daa wax nag ne wajbu laha al xayra min al jihaati as siti wak fiha an il afati sëñ Tuubaa dafa woote ba lépp dëgmal ko lépp ñëw ci dëkk bi mu sëñu ma dëpp nag waaye sañ na maa segg moo tax léeg nit ñëw bëgg def dara ci jumaa ji waaye damay gàntu nga teg ko ca fa suñ kilifee daa natte buñ ko nattee ba xam ne lii kat buñ fi nekkoon danañ ko wéyal ñu doon ko waaye yéen nag xam nañ lii ngeen def lépp génnul loola moo tax suñu xel dana ci mm. xelu xolu suñu sedd na ci. Ah. ñu leen ci ñaan ngeen dee cee tawfeex ngërëmu suñu Tuubaa. te yéen jëf yu bëree bëri toppaa ci. Mm-hmm. ba faw ànd ak kàttan ak ngërëmu sëriñ bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.